xel mbokki internetu Baol TV yéen ñi koy suivre lamb actualité te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne mooy Baol TV ñoo ngi fii ci arène nationale tey journée ki nga xam ne moom moo di Ndiaye production premier combat de la soirée nekk ci biir géew bi ndaysaan arbitre soufflé mu dox seen diggante ñoom ñaar ña ngay leewtoo mooy première combat bi nga xam ne nii mooy premier combat de la soirée ndaysaan kenn defagul action ci ñoom ñaar fii ci arène nationale ay combat yu neex yu doy waar ndeysaan ndeysaan ña ngay dox ma ngay dox di ko fekk si ñoom ñaar ay lewato ndeysaan premier combat de la soirée ba léegi moo nekk noonu ci biir géew bi jàppante na ñoom ñaar dóor na ko pour reculer ndeysaan ba tey ña ngay dox di ñëw jàppante na ñoom ñaar lu mu bëgg ndaysaan ndaysaan ma ngay dóor di rokas waa ku mu dal buntu feeñ ma ngay rokas ndaysaan ma koy rokas ba tey ma ngay rokas laa ilaaha illallah ba tey ci arène nationale journée xam ne moom mooy Fallou Ndiaye di production 31 octobre 2020 ndeysaan déggal ma ambiance ndeysaan waa ngay riir ndeysaan ndeysaan ba tey ci ay ko wër na ko ndomba takk na ko luy xew laa ilaaha illallaah yëkkati ba ca kaw daan na ko jël bu rëy wër na ko ndomba ma ngay daanu yasi lii lan la yasi la am lu mu oh! ndeysaan takk ba ca kaw yëkkati door ci suuf ko ne ko doole doxul jàmm maanaam man duma sa morom ndeysaan ay jama nga xëpp boppam suuf ay waay lii lan la nii waay ay xanaa mbokkum guy gi nga ay mbër ay ja ay mbër ah mbër nuyu naa la. lan moo tax mu yéex tu ba mu yàgg nga jàpp ko yëkkati rek. combat bi dañ ko yàgg a togg. bilaay taalaay sax heure buñ ko toggee mu yàqu. li nga bëree moom la. ma lii ah Bogaata. waa Mbewan sama waa dëkk waa Mbewan maa leen sant bu baax a baax a baax di sant waa Mbaaw Kër Mbaye Fall écrit Kër Mbaye Fall. ndeysaan saabonte di sant sama gaay yëpp nag képp kuy bëggee Thiatou Mbéwane maa ngi lay sant na gaay yi ñu bëre non ponkal la dafa diis dafa diis mais amul am naa ne maa ko mën loolu moo waral combat bi yàgg euh, Bour na ñëw ñu bëre wala Liis Ndiaga wala loolu na ñëw ñu bëre na ñëw ñu bëre wala wala kee safara Mbaye Diop safara na ñëw ñu bëre maa ngi ci 3 combats 3 victoire na ma gars yi jël ñu bëree waaw maa ngi sant sama gars yëpp nag waa Mbewaan gépp waa Mbaaw waa Kër Mbaye Fall waa Kër Massar waa Touba ñëpp daal maa ngi di sant sama benn grand frère si la ak maam góor Abdou Gueye gars yëpp jàpp nañ ci daal bëgg naa ñëpp ay ñoom Amet sama gars di sant sama kot si ngañ ca doonu waaw caata doonu ndeysaan ndeysaan dara waa Ada Fass yi li Thank you. arbitre soufflé waat na combat bi seen diggante ñoom ñaar ginnaaw ba ñu bëree lu tolloog 10 minutes dem ñëwaat diggante Papa Cité ki nga xam ne moom moo di oh Pam Doy numéro 2 ndaysaan xale yi dafa mel ni dañoo neexoo xeex nañ ba sonn ji ma bëre waaye sottiwul kenn daanagul sa moroom ba tey ña ngay léewtoo ñoom ñaar ndaysaan ña ngay léewtoo diggante Papa Cité ki nga xam ne moom mooy Pam Doy numéro 2. xëy na bu ñu del suwaatee buntu feeñ peut-être bu ñu del suwaatee buntu feeñ mooy deuxième combat bi bu len ko jaawale bu ci kenn mbiiloo mbaaloo lii ma leen wax a wér ndaysaan bëgguma mbiiloo mbaaloo de ndaysaan labajal bi bañ bu kenn labajal ndaysaan mu ngi noonu ci biir ñoom ñaar ña nga jàppante ku nekk ngay déglu sa morom ñuy puusante ñoom ñaar loo ci xamul xamul mooy combat bi yàgg na te ñoom ñaar dañoo mel ni dañoo xaw a neexoo ndeysaan ndeysaan ba tey ñoom ñaar jàppante nañ ba tey ñoom ñaar ndeysaan ci biir géew bi dik ndeysaan ba tey ci arène nationale yéen a ngi dégg ambiance bi waykat yaa ngi woy ndeysaan ci journée wu ki nga xam ne moom mooy Ndiaye production ba tey ndeysaan ndeysaan ba tey di leen ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da ngaa toog ci defet te ba ngaa yóbbul say mbokk lu leer man leen a jox ñu jàpp fu wóor mbiloom baalo na laa ilaaha illallah Papa Siteu ndeysaan mbiloom baalo abu combat bi na ah combat bi nii de mais jël daf maa bett. ndeysaan la jógee woon. ndeysaan daa ñëw corrigé waat boppam tey. ndeysaan booy bi dama koo mere. ah xale boo nekkee xale. da ngaa war a mën a jàpp ak moom. ndeysaan kii ndaama la war na mën a bëree. moom Pape Ndoye. waaw war na mën a bëree. ndeysaan xoolal kii xool xoolal matière yaram bi. ndeysaan kii bëri Pape Ndoye dafa mel ni xeex bee ko trompé. bu mu topp turandoom. ndeysaan turandoom xeex kan la. daa topp xeex bi ba daanu daa topp xeex bi ba daanu. ooo. Oh. lamba doy waar. ñu ngi noonu ci biir ñoom ñaar ndeysaan Pape Ndoye ki nga xam ne moom mooy Papa moo ko daan doomi jàmmagal la ndeysaan moo nekk noonu fii ci arène nationale journée ki nga xam ne moom mooy Ndiaye production ndeysaan xoolal may stade bi jëlal supporter yi ambiance